bismillahi irrahman irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasulihi al amin wa ala alihi wa sahbi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli mbokk yi di suivre te télé bi ñuy tuddee Mouslih TV Eh, nu ngi leen di nuyu di leen siyaar kenn ku nekk ci doom santam di leen ñaanal jàmm ak tawfiq eh, kii di seen mbokk eh, Abdourahmane Youssouf Ka ñu gën koo xamee ci Youssouf Ka di imaamu ratib bu juma Sicap Mbao di kenn ci mbokki jullit yi yéem a sonn tuuti ngir xam li xew ci Euh, monde bi ci àdduna bi rawatina ci li ñuy tuddee monde musulman